Je suis Madame euh, Hélène Ramagnan, présidente de FEXA, femme Éducation, Culture, Santé et Développement en Afrique. Euh, on est là pour la restitution de l'étude euh, Miroir sur le genre pour une parité de qualité et sa vulgarisation en partenariat avec Gypsoir, dont Madame Julie Cissé est la présidente. Cette étude met en relief la dimension genre qui est indispensable pour arriver à une parité de qualité. Parce que quand on parle de parité, on pense très souvent qu'on ne s'adresse qu'aux femmes. Alors que la parité, ça suppose les hommes et les femmes. Et c'est dans la même veine qu'on parle de qualité pour qu'on ait des hommes de qualité et des femmes de qualité dans les instances électives. C'est la raison pour laquelle nous avions mené une étude dans tout le Sénégal avec un consultant, M. Daoudou Diop, pour évaluer l'impact de la loi sur la parité et de savoir comment faire pour arriver à une parité de qualité. Parce que très tôt, nous nous avions dit nos détracteurs vont certainement nous titiller par rapport à la qualité. Ils ne vont pas se gêner de dire on a amené beaucoup de femmes élues, mais est-ce qu'elles sont à la hauteur, etc. En oubliant que quand on parle de parité, c'est vrai que c'est un ascenseur politique pour les femmes, mais ça implique les hommes et les femmes. Et nous pensons que nous avons eu raison parce qu'on a vu en ce moment, devant l'actualité, que la qualité est véritablement quelque chose qui nous interpelle, ne serait-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Comment faire pour avoir cette de qualité Comment faire pour avoir cette parité de qualité Il y a plusieurs étapes. Concernant les femmes, comme on l'a dit ici, Il y a certes le savoir, mais il y a également aussi la voix. Pour qu'elles soient bien positionnées dans leur posture de pouvoir, il faut qu'elles soient capacitées davantage, donc les formations, les renforcements de capacité pour élever leur niveau de compréhension des enjeux. Il y a également aussi au niveau des hommes de faire en sorte les hommes comprennent qu'ils ont des femmes de valeur et de qualité en face. Donc leurs interlocutrices sont au même niveau qu'eux. Cela veut dire qu'eux, ils sont aussi interpellés par rapport à cette dimension d'excellence et de qualité et que ce n'est plus seulement une attente qu'on doit avoir concernant les femmes. Et donc de ce point de vue, en plus, du renforcement de capacité, de la formation. On doit faire un plaidoyer au niveau de nos frères, mais également aussi au niveau des institutions publiques, étatiques, politiques et au niveau de tous les élus, pour que justement on puisse faire en sorte qu'il y ait euh, cette parité et cette parité de qualité. Et quand on dit au niveau des institutions, surtout judiciaires, parce qu'on s'est rendu compte au plan juridique, qu'au niveau des listes, la parité était respectée. Mais quand il s'agit des bureaux, la parité n'est pas respectée. Et ça, c'est le combat dans, dans, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de communes et de départements. On a dit même ici à Thiès, au niveau du conseil départemental, il n'y a pas de femmes, ça pose problème. Il n'y a pas de parité. Ça pose problème. Donc, cette parité-là, on en a euh, besoin pour booster la participation politique des femmes, mais également aussi pour faire en sorte que les hommes puissent avoir en face de des femmes de qualité et eux-mêmes sont également aussi des hommes de qualité pour que nous puissions aller vers, qu'est-ce qu'on a dit, l'émergence. Une émergence, c'est d'abord un capital humain qui soit capable de porter cette émergence-là. Si une émergence existe, alors qu'il n'y a pas un capital humain capable de porter cette émergence, on aura beau crier émergence, que cette émergence ne va pas se réaliser. Mm-hmm. seen participation ci atelier bi lan lañ ci mën a suñu participation si atelier bi euh, bi ma leen ne jërëjëf ba pare euh, mooy ne jàpp nañ ci ñun lu ñu neex a neex. ndax Julie Cissé mi nga xam ne mooy président Gips waa daral ñu fii invité na ay naataangoom yoo xam ne ay leader de qualité lañu wax fa dëgg yàlla femmes yiñ fi dajeel ku si nekk am nga benn xareñ boo xam ne ñun danoo yéemu donc loolu rek yéegal na niveau atelier bi niveau boo xam ne vraiment dal na suñu xel góor ñi fi ne tamit ay góor yoo xam ne dañu am ouverture d'esprit lañu dañu éclairer dañuy comprendre enjeu yi nga xam ne moo nekk ci participation politique des femmes ak parité ba ci parité de qualité ci loolu dañu naan jaajëf euh, chef de service direction communautaire monsieur Meng bi nga xam ne moo fi toogal Euh, góor ñi mais état bi aussi parce que ministère de la femme la bàyyee ko. mu ne am na benn document bi ngeen xaatim ngir parité boobu sax ñu jox akam boobu lan lay wax exactement. document boobu euh, dëgg la dañ ko xaatim ci kaw étude bi nga xam ne dañ ko defoon parce que bëgguñu woon rek jóg rek wax suñu ay wax bind suñu ay bind lawal ko taxaw déedéet dañu jël consultant mu wër Sénégal. ñu def étude bi xool xayma ba ñu waxee loi la parité ba léegi lan la jur naka la ko jigéen ñi xalaate naka la ko góor ñi gisee ba ñu xaymaa xam li mu jur lañu ñu dal di bind téere boobu ne wax nañu parité waaye dañu ne parité bu fekkee parité bi àndul ak qualité du ñu jëmale fenn donc parité bi fokk mu lalu ci qualité concerne góor ak jigéen ku si nekk xam sa wàll xam sa nekkin xam sa gëdd ba nga xam ne nu ñuy représenter askan wi fa ñuy nas ak noccee fa ñuy dogalee dinañ fa am taxawaay boo xam ne mooy taxawaay bi war ak taxawaay bi nga xam ne moom la askan bi di xaar. parité de qualité lan lu muy wund mooy li ma wax rek mooy ne du jigéen ñi rek parce que jox nañ leen. Euh, jumtukaay wala sañsañ boo xam ne daf leen di yéegal fa ñuy dogalee ñun dañu wax ne warul yam foofu dafa war a law ba nga xam ne góor ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqal sax ñoom it dañuy inscrire li tubaab di wax ci excellence mooy bëgg lu baax taxaw ci lu baax am xalaat yu rafet ak yooyu loolu mooy qualité bi parce que bu ñu gisee lii xew euh, temps yi yëpp assemblée du ay jigéen ñi kese yuy nekk di xeexandoo eh, seen biir déedéet góor ak jigéen ñooy xeex te pourtant ñoom dañ leen wormaal di leen wax honorable donc qualité bu fa amoon góor ak jigéen day xam gëddëb góor ak jigéen day xam ne fal nañ leen te askan wi nga xam ne bàyyi nañ fi ñu bare fal leen ñoom dafa am fu ñu leen di xaar niñ leen di xoolee ak li ñu namm ci ñoom loolu nag nga xam ne dañ ko namm ci ñoom ñu doon ay njiit yoo xam ne ay royukaay lañu loolu mooy parité de qualité parce que koo xam ne mënuñu laa roy kooku mënoo nekk royukaay parité de qualité loolu la wund